nee na ba mën koo taxawu nee na ba agsi ci fii ñu agsi nee na goon mu ngi santaat suñu borom subhanahu bi may lool di siyaare itam nee na Serigne Cheikh Ndigal Sène nee na moom Cheikh Ismaila Diouf nee di ko ñaalit nee suñu borom nee ci barkeb sëriñam a Cheikh Ismaïla Diouf Nouroullahi nee na suñu borom yokk ay fanam nee na yokk wëram nee yokk kattanam nee na li mu yéene ci lislaam nee na mu gën koo mënee nim ko nee na ndax kat nag nee bu fan yi guddee nee na jéem xam nañ ne nee na naal bi rëy na nee na suñu borom dina matale lépp nag nee yal na ko suñu borom defee noonee nee na Karim muy baalu ñëpp ak nee te di baal ñëpp ak nee na gi yëpp. nee na ci jiital Cheikh Mouhamadou nag. nee def ci bés bi léppam. na def ci ba bés bi mel nii. nee nee na mu koy sant nee na ci teewaay bi nee na bi mu teewut waaye léppam nag teew na nee na Cheikh Ismaïla mu ngi bëgg magam boobu muy Sëñ Baara bu baax nee bu ko defee itam nee na Cheikh Ismaïla mi nga xam ne moom moom bés nee na sëriñ bi muy sëñ Cheikh ndigal may ko ko nee na muy màggalu ngóor ak jégaan nee na boo ko déggee nag te xamoo mu tekki mën ngay laaj mu luy ngóor ak jégaan waaye nee na loolu nee na Seydina Aliou Faye ci léegi sax nee na bi muy waxtaan ak sëñ Cheikh Ndigal moom Cheikh Moustapha sëñ baa ngi ko koy fàttali. nee muy bés bii. nee na magal daaru salaam kabal. nee na bi Cheikh Ismaïla Diouf Nourullahi di waxtaan. nee na bay fàttali mbooloo mi ne leen Serigne Touba def ne woon bu may ñëwaat ci ngóor ak jegaan lay ñëw. nee na te mu wax ne te man ngóor maa ngi nii moom si Ismaïla mu ne jegaan a ngi si Ismaïla mu wax ko tudd sëñ Cheikh Ndigal Sène. nee na kon nag. nee mu nekkoon kàddu bu mu yàggoon di junj moom si Ismaïla. nee moom Serigne Moustapha nag ci gis-gisam. nee na doon gis ne moom si Ismaël junjut. ah. nee na dënd ki waroon a màggal bés boobu muy kàddu gi. nee na comme dafa nekkoon daara. nekkoon fa di liggéey. nee na te liggéeyam àggagutoon. nee na balaa mu koy moom si Ismaël ba mu leer nañ ci nopp ñëpp. nee faw kooka noppi ci liggéey ba mu nekkoon daara ba ñibbisi nee ngir bu fàddu bi jibee rek nee na kooka nee na war a jóg nag tàmbali màggali ko nag nee na te mu mi toog nee loolu rek moo waraloon si Ismaïla daan junj rek nee na bi borom kàddu ki accès nee na nekk turandoo ba xàqam nag nee na si Ismaïla daa di wax nag mu leer nañ nee na ba nga xam ne bu amatee nee na kaddu gi moom nee na at bu nekkati rek nee mu kaddu googu am bésu boppam nee na kon loolu nee na moom Cheikh Moustapha Karim noonee la ko gisee te yaakaar na ne noonee am loolu rek am seen nee kon nag nee na na. nee na yàlla def ci barke nee na def ci tawfeex nee na def ci pajum aajo nee ci ki ko jiite ak mboole seen ku fu teew nee na wala sa ñàkk dem ci wala nga amoon ci yéene wala nga dégg ko nee na te mu neex la ci barkeb Serigne Cheikh Ndigal Sène nee na ndax nee na mën naa defar lépp ndax kàddu googoo defar ñëpp nee na kon nag nee na Cheikh Ismaïla Sène nee na bi dey nee na ba léegi bi muy jokkoo ak moom fii mu toog nii nee na sëñ Cheikh Ndigal ko na sa xel dal te nga xam ne lépp loo bëgg nee na yéena ci liggéey nee na di nga ko mën di seet nee ba mu kawe njot ndax nag nee na bés bii nee na bi sëriñ bi joxee ndigal li ba noppi nee na da caa tegoon nee na maanduwu ca nag nee na da cee soññee nee soññ ci njaboot bi yëpp nee na na ci cheikh yi nee na ci seen njiit Seydina Ali Faye na waral. nee na gis nañ fi seen teewaay nee na mu jël kàddu nee na wax wax ju gàtt waaye wax ju fees dell ak njëriñ nee na kon loolu nee na moom la ñu doy ab jëwriñ nee na mote nga ko sëkk señal yëpp nee na sax ba faw ci doole seen Cheikh Ndigal nee na seen Cheikh Ndigal ba mu noppee ci cheikh yi da cee jël bés bi nee na teg ko ci loxoom moom Cheikh Moustapha nee na wax ko ne bu bés ba jotee nee man seen Cheikh ndigal maa fa waroon a toog waaye fépp foo teew yow Cheikh Moustapha nee sama jëmm ji moo fa teew nee na nag teewal nee na santal leen ma waaye ñaanal leen ma nee doyu ko nee mu woote waat nee na wooteeg boppam nag nee na delloo fàttali nee na lam ko waxoon moom sëñ Cheikh Ndigal nee na kon bés bi ñor na sëñ bi nee na moom Cheikh Moustapha muy sant nee na mbooleem suñuy waajur yëpp nee na mu ciy jiital ki yàlla jiital muy Adja Soxna Ndiol Guèye nee na ñëpp gis nañ fi teewaayam. nee na mu gontu jaare ba Cheikh Moustapha. ñaan ci bés bi. nee te ba tey. nee na bés bii. nee na ñor bi mu ñor sëriñ bi. nee na daa am doomu sëriñ Babacar nee na bu jigéen nee na boo xam ne yaa njole la ko tudde nee na bi bés bi di jege nee na sëñ Cheikh joxe ndigal nee ci loo xam ne sëñ Babacar it da caa ànd bëgg ca lool sant ca lool nee na mu dindi doomu sëñ Babacar bu jigéen booba na jéem bés bi bésub naa ko dindi nee na mu nekk ñu tudde suñu waajur muy yaa Adja Ndiolé Guèye nee na mu sante ko Serigne Ismaïla Sène mi toog nee ci bés bii loole it nee na Cheikh Babacar Diop Serigne baa sant nee ñun njaboot gi yëpp it li tàmbalee ci moom Cheikh Moustapha. nee na ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak njaboot bi topp seen ginnaaw yëpp nee na ñu ngi la ciy sant nee na ci joxe bi ak niñ ko joxe nee na dara xew nee na ab taalibe nga joxe nee na yal na lépp loo ci sàkku wala nga yaakaar ko ci suñu borom sëy la ci lu kawe sa ñoom. ci barkeb Serigne na ndax kat nee na na ku ca joxe ab soxna nee na méngoo na nee na la in wax nee na bu ngeen ma sante nee na ma dolli leen nee na kon na ab lépp li ko waral mooy nee na pour nit di la sant nee na ba nga mere ko nee na loolu du yomb nee na nit tey dalaa mën a xarab wala mu la yéem nee na ba nga jéppi ko nee na jéem suñu borom sax moom mi nga xam ne nee na cantu jaam bi nee na jëriñu ko dara ndax cant bi nga sant sa borom nee na sab yokkute la yow jaam moom moo ne boo may sant ma lay doon nee na kon nag nee na bu la seen ceeb ndigal mayee bésub cant nee ba loolu damay bésub yokkute nee na bésub yokkute na képp ku ca teew wala teewoo te sa xol teew wala sa ñàkk teew nee na yaa yokk sa bopp nee na kon nag nee na sëñ Babacar Diop nee na njaboot bi a ngi booloo di la sant nee na di sant ba tey nee na ci kàddoom Serigne Cheikh Ndigal seen mboole seen njabootu boppam nee na li tàmbale ci sëñ Xaadim seen Cheikh Mouhamadul Fadal nee se Serigne Cheikh Yaaram seen. nee na soxna Astu Seen nee na moom mi njiitu soxna yi nee soxna ya lam nee soxna maam jaara ak mboole seen soxna yi nee ci seen taxawaay ci bés bi nga xam ne nit ku ne dafa jël bés def ko bésu boppam lépp lu ne nee ñu ciy majaal nee na ci suñuy layu bopp sax nee na bii dañ ci doon yëngal nee na ba ak si fa Cheikh Moustapha mi nee na mel ni ñu siyaasi nee na ma ne leen xanaa bii xeetu siyaar day doog a xew nee na ne leen majaal boo xam ne guddi lay ne nee na sa ba jekk nee na mel ni ku siyaare nee na ñu ne ko ki xewle moo tax nee na mu ne kon kookaa ñëw ak yoon bi nii nee na lu waay tëju tëju nag ñu fëgg la nag ñëw bi nee na kon loolu nee na ñoom itam nee na ma doog leen a wax ne ñaanal leen ma man sëñ Moustapha ba noppi nee na ma doog leen a ñaanal nee na kon loolu yëpp nee na bés bi jaral na ko nee na ñu doon ay waajur yoo xam ne nee na bu ñu xesee wax ne nangam la xew na te lépp bokk ci sëriñ bi da ngay yaakaar sax ne nekkatuñu ay waajur nee na kon ñoom it nee na yàlla leen suñu borom yokk a jàppale gën leen fee bàyyi nee na ba li ñu yéene. nee na seen digganteeg sëriñ bi nee na ñu mën ko nañ ko bëggee waaye nee na ñu nit di doomu sëriñ bi niñ leen yéene nee na seen diggante ak seen waajur yooyu nee na suñu dimbale leen nee na ci barkeb sëriñ bi nee na ba ñu mënal leen ko niñ ko bëggee nee na njaboot gi yëpp nee na ñëw nañ nee na ñu nekk ca Cheikh Abdou nee na di fa jàng ñëpp. nee na di tàmbale ci Serigne Mame Cheikh Serigne Alaaji nee na sëñ Abdou Hakim ñoom ñoom sëñ Abdou Khadir nee na ñoom ñëpp rek teew nañu fi ngir rek màggal si bés bii nga xam ne nee na ñun moom nee na dañuy ñaan suñu borom ci barkeb Serigne Cheikh Ndigal Sène nee na mu may ñu ba ñun ci suñu bopp. nee na ànd boo xam ne nee na bu ñu dajal bu ñu booloo doo mën a xam ne nee na kii mag ak ki féete suuf nee na ku xewee rek nee na comme ni ko ñoom Serigne Fallou defe tey ñoom Serigne Khadim nee na futteeku nee na ñëw nee na taawu Cheikh Ismaïla nee na ci seen doole ak seen ñàkk. nee na taxawu bés bi lépp luñ ci war a def rek nee na ñu ne ca loolu nee na sëriñ bi day nee na moo ko wax ni nee na ma leen seereel nii bëgg naa ci ñoom nee na ci taxawaay bi nee na nag mbégteem rek nee na moo ñu jaral tiital moo ñu jaral di bàkku leneen lu mu mën a doon ne nee na leneen lu mën a doon. nee na te mu wóor leen ni. nee na buñ ko defee. nee na du dëppoo ak mbégteem. nee na amuñ ca soxla. nee na kon nag. nee na bi sëriñ bi bëggee ci lii. nee na moomu rek. nee na mën naa ndigal moo ñu ko jot nee na kon nee na kon njaboot bi yëpp sëriñ baa ngi ne na mbégteen ni ngeen teewe ci bés bi ak taxawaay bi yëpp nee na kon nag nee na ñun ñëpp it nee na ñu ñaaral ko rek nee na mu yàgg rek neen te ànd ak wër amen nee na moom Cheikh Moustapha bi nee na xam ni Cheikh Ismaïl bu ma dindee sama alal jox ko du ko neex nee na waral ma dindi yére jox ko ko nee na mu doon ab barkeel mu ñaanal ko ci nee na fasal ko ci nee na dogul ko ci it nee na ko ci dogul na nee xam na ko. jarab mu koy wax fii yàlla ko suñu borom nangu amin nee na ci barkeb sëriñ bi nee na ndax nag nee na njaboot bi yëpp benn nee na moom mi la yàlla na yéen kenn ci yéen nee na koo dina taxaw ci fu ko naqari moom Cheikh Moustapha nee na muy ci wax wala ci jëf nee na amut nee na képp ñu ci teg bët nee na day yaakaar ne kooka sëñ Cheikh ndigal la gis nee na kon loolu nee na amul seen i pay nee na yàlla na suñu borom yokk jàppale ci barkeb sëñ Cheikh ndigal seen nee si Ismaïla moom. daanaka mu jëmoon ñaari mi mat maa yoon. moom li ëpp yëpp fu ma jëm maag moom ànd. nee na loolu nag. nee na tekkiwul sax ni. maanaam daa fekk ñun ñoo war a ànd. nee na da di léeg-léeg ñii jëm fii. ñee su ko defee. bu suñ xaadim nekkul ci dara ma ne ko kaay leen ñu ànd ñun ñett bu fekkee kii jàpp ci tere yi wala mu doon loo xam ne oto yi dinañ xat nee na ma xaj ci a Ismaïla ne ko kaay kaay nee na kaay wetti li ma nee na démb la ñu jóge Poroxaan nee na maak moom nee na mu ñëwaat tàmbalewaat ci bés bii nee na kon bés bi ak liggéey bi nee na réere ci ci dara nee na kon loolu it ma seere ko mbooloom yëpp am xam ne lii nee na moom sëñ Moustapha lii daa bokk ci li ko neex ci sëñ Cheikh Ismaïl nee na bëgg ngóora daa baax ci nit ndax boo bëggul ngóora da ngay bàyyi rek lépp lu am rek baax na te nit it nee na di kër kër yi nee na day tax nee na nga am luy waaye boo bàyyee noonu nee na lépp mën naa sotti waaye sabab lu am na solo loolu itam. nee na muy ci ñaax boppam. nee na ñaax ci jaboot gi yëpp. nee te xam ne ñun daal. nee na ñun moom bëgguñu dara. nee na waruñu dara yi. suñu itte yëpp. mooy. li ñu xes a teg bët. nee na sëriñ bi ne ca. nee na yar ñu ca. nee na nampatal ñu ca. nee na def ko ci nit ñi. ba ñëpp gis ko. nee na muy jaamu yàlla nee na liggéeyal sëriñ bi nee na moom amul beneen itte lu dul loolu nee na kon ñu nit nee na bi ñu yàlla di bind de nee na bind ñu ngir lenn nee na lu dul ñu ñëw. nee na jaamu si ko. wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni yàlla ko wax. binduma nit ak jinne. lu dul ngir ñu may jaam. waaye nag. nee na boo toogee rek. bàyyi rek. ne yecc rek. bëgg lépp sotti. nee na loolu du luy sotti. ndax Serigne Touba Xaadimu Rasuul daa wax ne. taroomul majda. taroomul majda. suma tanaama layla. nee na suma tanaama layla. laqad atmaxta nafsaka fil muhaali. Hmm, kaara kaa rek de. Eh, tey foog nga gàttal ko dogot dogot rek bu gàttee daal ma topp la bu guddee nag ma balaak moom. dama <laughs> jàngul. waaye neex na loolu li nga wax moom. fëril ñu ko rek. ca ah. ah dama bëggoon da koy firi sax nee na sëñ Tuubaa nee na di sàkku teraanga ak xéewal ak fajum aajo te saa ne nee na rek ne ca la la neex nee na képp ku ne nee na xemmem loo sa bopp wala dig nga sa bopp loo xam ne jomb na muy am nee na doo ko mos a mukk nee na kon nag nee na loola waral nee na ci coono nee na ca la lépp dem. nee na boo nangoo son te yàlla rek lépp la bëgg nee na di nga ko am nee na kon loolu nee na moom fekk nee suñu kilifa ne ca. nee na ko loolaa taxit nee na njaboot gi yëpp képp koo gis yéeneen ak jomam ak pas-pasam nee mooy diine nee diine yëpp nee mooy yéene mooy yoon kon nag képp ku ñuy ñaanal nee na ñaanal ci loolu te nga xam ne ñun daal ci lii moom la suñu bëgg-bëgg ne moom la suñu pas-pas ne nee na ñu boole ko nag nee na teg suñu tànk nee na ca ba bokk mooy ñu ànd. nee na di di di di fasante it ñun ñëpp nee na di tekkee kondoo it nee na loolu itam nee na incha allahu rabbi nee na loolee ci lañ bëgg a sax nee na loolu nee na jotaay bii nee na wane na ko képp ku gis nga njabootu seen Cheikh Ndigal yëpp ñu booloo nee na ki moom bés bi sax. boo ko gisee da ngay foog ne du mooy borom bés bi nee na kon loolu nee na li muy dolli nit mooy nee na yokkute rek ndax lislaam nee na ni mu amee doole ak ni mu defaree lépp kon nag nee na bu yàlla dogalee nee ak bët bi ñuy xool léegi loolu nag nee na jéem yàlla nee na ci barkeb si Ismaïla nee na ci moom la ko wàccee boole koog suñu jàmbaar ji nee na mu ñëw nee na ku ne xam na ni lii yaafuus mënu ko ak ku tayeer mënu ko na lu yomb mënu ko. naan kene fop nee na loolu yëpp ka foog nee na dafa bokk nee na ci jikko yi nga xam ni nee na day xañ nit la mu waroon a am nee na mu bañ koo am wala mu yëg koo am waaye ku ne xam na ni sëñ Cheikh Ndigal Sène nee na képp ku ko ne jàkk di nga gis ci moom nee na gëm ak dëggu ak pasteef ak ngor ko dogal ak dog wala wala wala mot na si nee na dog bu ko sëkk mu wóor la ne lii ah, ah, ah, nee na yor na ko digganteem ak sëriñam yor ko ci yaakaaram nee na ko dong yem ca nee na da koo ko wone ko jëfoo ko nee na bu ñëpp teg ci seen bët. nee na kon nag nee ñii di jaboo nga xam ne moom lañu suñu borom boole. nee na suñu pas-pas yëpp nee na moo di ne na ñu topp ci ginnaaw bu ne acca. ñu départ mu ne toog leen nee na ñu toog nee na kon nag nee na Cheikh Ismaïla Sène nee na na sa xel dal bu ak moom léegi moo di ne waxal Cheikh Ismaïla ne bés bi dina barke te même nee te barke moo ne mooy lépp nee nee na Serigne Touba daa wax ne. nee na mooy li nga xam ne. nee na mu tàbbee ci mbir. Ah, lu mu tuuti tuuti. nee na mu bëril ko. nee na bu génnee ci mbir. loola lu mu bëri woon bëri. Ah, nee na dina ko tuuti. nee na kon nag. nee na baatu yàlla na barke. nee na bu booboo ci koo xam. ak loolu nga tabarake tabarake bu bëggee mu barkeel mu barkeel donte waxul sax nee na surtout nag bu ko waxee nee na kon nag nee na loolu nee na xel ñëpp war nañ cee dal te xam ni nee na moom Cheikh Moustapha daa am lu muy gëmloo nit ñi nee na ñoom njabootu si Cheikh Ndigal nee na ñëwuñu ngir bëgg a doon njaboot boo xam ne dañuy tëdd rek nee na di xewlu nee di naan nee di jommal nit ñi di woote ay defal ma nangam defal ñu nangam indil ñu nangam déedéet nee na loolu day nee na moom de Cheikh Moustapha xamul keneen. waaye moom mii yàlla teg ci boppu njaboot bi. nee na jéem loolu moo ko njëkk a jommal boppam. nee na sàkkaat keneen. te sëriñ bi nee li mu sax di leen digal. nee na mooy ñu gëm seen bopp. xam seen bopp. bañ a yàkkamti dara nga xam ne lépp lu war ci ñoom nee na ku dox jëm ca loola nee na loola dina tase ak yow ci barke si Cheikh bi ndax ku defar ñu mu jur nee na sakkantuma ñi nga xam ne ñooy say leer te ñooñu ñëw nee na tëdduñu nee ndax jóg ñoom it dox jëm ci lan bëgg nee na loola. nee na na ci ñëpp sax a na bu kenn ñàkkal sa bopp fay na bu kenn ñàkkal sa bopp fulla nee na bu kenn nee na ci ñun nee a nga fexe nee a bu ab taalibi nee na bu gisatee sa numéro bañ laa wuyu ndax yaakaar ne dañ ko war a bëgg a sas nee na moom sëñ Moustapha day loolu. nee na dama koy bañ. nee na bayuma bu am mbooloo sama ginnaaw. nee dama ko mos a bañ sax ca. lépp lu ma mos a ñàkk rek. nee na ma muñ ko. te xam ne. nee na suñu kilifa. suñu waajur. nee na lim daj fii. te kenn mosu koo yab. nee na ci benn fan. nee na mu nekk fi. nee na ak ngëmmam nee na taxaw ci doyloom nee na te gëm ne lépp li yàlla bind ci sama jëb yi nee na ma war koo am nu mu mën a toll dina ñëw tey nee na ñëpp gis nee na kon nag na kenn ci ñun nee na àggagut nee na fa muy amee dara wala muy ñàkk dara nee na loolu nee na bi. Ismaïla ban loolu Cheikh Ismaïla mii wane na. ñim fi seet. ne ay jawriñam lañ. nee na pare yenn saa yi mu jóg. fekki leen. ñooña. nee na moo leen waxtaanal. dugal leen ci yoon bi. loolu. nee na loolu mooy ndam. waaye boo ko xoolee sax. tàmbali jële ci yoon bi. xëj ci sa bopp. du du suñu du seen nit ñi bëri kii barkeb sëriñ nee na bu mbooloo topp ci barkeb sëriñ mi nekk leeru sëriñ bi barkeel ñëpp nag lépp wut te amoo ko nee waaye du ci sëriñ bi de nee na jébaay ba ne. jébaay. daa laaj lool. nee na koo laaj lool. nee na ñun ñëpp ñu gëm suñu bopp. nee na bu kenn ci ñun. nee na nga ñàkkal sa bopp fayda. nee na bu mu doon ci internet. bu mu doon ci leneen. yàlla. képp ku mu bëgg nga siiw. képp ku mu bëgg ñëpp xam. nga fi jóge. donte benn bés la. nee na xam. nee na ci wone sa bopp wala nga wax sa bopp loolu yàllaay xool mu neex ko nee na mu dogal nee na loolu mun a wax munu koo may nee na mun a génn munu koo may toog rek ne ci li nga ne képp wone nga fay te boo feeñee dootoo làq mukk kon loolu nañ ci gën a góorgóorlu bu baax nee na jàppante doon lenn rek nee na comme ni ngeen ko def nee na buñ ko defee sëñ Cheikh Ndigal nee na léegi la ko wax nee na bu ngeen defee noonu lépp lu ngeen bëgg ak fu ngeen bëgg a àgg nee na àdduna ak alaaxira nee na di ngeen faat